góor bu maanoo sore jàpp góor yomb na sol leer faale jafe jàpp góor yomb na sol leer faale jafe rijal la kamal la sharif la yeneen la ey la illa la illa la muhammad rasulullah sallallahu taala rijal la kamal la sharif la yeneen la waaw maam Seera Fall de nee na deret dañ koy maye nee na deret dañ koy maye waaye ñàkk dañ koy jaay maam Seera Fall nee na deret dañ koy maye waaye ñàkk dañ koy jaay nee na bàkkaar lu mu tilim tilim tilim tilim boo ñëwee mu liggéey loolu mu dara ji tilim xol bu sëcc xel mu nëx nee na da lay liggéeyloo bakkaar toxu leer dugg nga set wecc sa yàlla bay Faal dafa war di sellal te jub mi ni dëkk ak jaamu yàlla maanu mi ni dëkk tuub sax borom bàyyi mooy yàlla mu ni teraangay àddina am soxna ami doom mu ne suturoy àddina am loo tedd juróomeel bi mooy liggéey Baye Fall moom même ñàkk julli ba maam Cheikh ak ñàkk worom yàlla mokk ko defal sëñ Touba defal ko ko dañuy liggéey ci jamono bu ko defal loon kon toppal lal naa der bi ma jiite la waaw bu ma doon wax ak Baye Fall yi mbokk Baye Fall ñun yoon wi ñun ku ci bugg xas yoon wi wala wala nga su ñun nga koy jaare parce que bu ne moo si am parce que Seere Fall dafa luy wàcculoo tan di tey loo bukki man bu ma toppee ma defar ko ba mu yegg si yàlla léegi yoonu Seere Fall aqiqa dañuy seet buur yu jëkk ya daan fekk jabaru jaamul jël nga yor sa alal ñu ray la jël xale yi def njaam bàkkaar ba fu ñu koy waxe mu jël la liggéey loola bu la jëlee bu la liggéey loowee ñaq dugg bàkkaar toxu leer nga seet wecc ñu woon la sa digganteeg si yàlla nga bàyyi lépp loo doon def si lu bon jot wetu ngëm yoru mele waaju baax nag di am mel na amul di yor mel na yorul di xam mel na xamul di gis mel na jisul Baay Faal daal lépp loo xam ne sama borom bind na ko si alxuraan lépp loo xam sama borom bind si alxuraan baxara banaas mooy bay Faal dëgg-dëgg Baay Faal mooy danga war a jub ak sellal du dundab sam ñax jub te fonk say waajur rawatina boo di wut ngërëm te fonk loo sa waajur doom dara loolu man maa ko wax na ma ñëpp dégg waaw parce que ngërëmal yàlla ci waaj da ngay sàkku say waajur ak nu même lu ñu la mën a def jaayanteer rek bu ko defee loo wuti da yomb jërëjëf yokk ba yëkk غفرت لي كل سن بالغاد أتيت به لزاد بسكريا يا رب يا الله